suñu xol bi Sénégal a ci nekk su ma nee Sénégal nag mooy citoyen sénégalais yi. askan wi yëpp dëppoo nañ ni politiciens yi yàgg nañ ñoo nax yàgg nañ ñoo lor suñu ñëwee digge digge yi tooy xepp kuñ ci fal nga wëlbatiku yow ak sa njaboot ak say moroom politiciens ngeen dem jël seeni milliards. ñu am 2019 bi occasion boo xam ne buñ ko sàgganee ba mu romb buñ ko sàgganee ba mu raw ñu. dinañu dawat lu yagga yagga yag a jambat, suñuy ak suñuy febar way dina metti li nga xamne ne suñu jambat bu yag te ñu mënon ko safara ak Cheikh Anta job setan ba Cheikh Anta romb ñu ñu ko safara ak Mamadou Dia sagan ba Mamadou Dia romb ñu tey am nañu occasion su fi Senegal, Sénégal am nañu occasion dadi di suñu responsabilité jëlat suñu rew alal ji nga xam ne yàlla wërsëgale nañ ko te muy alal gu bëree bëri ñu delloosi ko ci biir réew mi li jot jot na am une génération politik bu bees bu loxoom set wicc bu am xam-xam bi mu laaj ba pare jiital réew mi ci intérêt boppam daaru la sama sëriñ nekk muy sëriñ Abdou Mbacké di sama sëriñ di sama sëriñ di sama xarit di sama mag di sama conseiller bëggal ma boppam wan ma cofeel gu mat sëkk te ma delloo ko ko kon daaru ci laa bokk bi ñuy dugg ci dëkk bi nit ñi arrêté nañ ñu wax ñu problème yi am ci dëkk bi wax nañ ñu problème ndox mi wax nañ ñu problème inondation yi wax nañu problème mu tali wax nañ problème mu paj mi lépp wax nañ ko ni mu amee fii nag la amee fépp ci senegal ci suñu programme nag di ngeen gis lan mooy suñu yéene ci daaru lan mooy suñu yéene ci zone bi yépp ak lan mooy suñuy mbébét ci Sénégal dañoo bëgg nag ngeen jàpp ci jàppale ñu parce que ñun dañ leen bëgg bëgg leen jàppale gannaaw bi ngeen ñu wóoloo parce que lii kóolute rek moo ko mën a def dañoo bëgg keroog le 24 waa daaru nañu génn massivement na ñëpp génn balaa boobu ñi jotagul seen carte électeur nañu dem ci commission yi retiré ko yéen ñiy toogal parti bi fii daaru ak li ko wër na ngeen xool fichier électoral bi dimbale waa daaru yëpp ku nekk xam fan nga war a wote jee di nuyu xalif général kullu Baye Fall di ko gërëm moom it ci ñu ñu yaatale ak ci fan yu néew rek ni ma recevoir may ma tuuti ci jotam buñ ñu wóoloo ba dénk ñu réew mi dinañu voté assemblée nationale li ñuy wax budget culte mooy ni paj nekkee farata ci réew mi njàng mi ne ko dund gi ne ko tali ñépp loolu doon ay soxla noonu la diine nekkee soxla ci sénégalais yi kon su ñuy voté budget ne lii pour njàng mi la lii pour mbay mi la lii pour napp gi la noonu lañu ñu war a mën a voté budget ne lii nag dañoo bëgg mu dellu ci diine gi bëgg nañu intégration am ci xeetu njàngale yi am fii ci senegal waaye loolu suñ koy def muy système bo xamné ne dinañu fexe ba intégrer système enseignement religieux mu and ak benen système bi dañ koy def ci kaw concertation moy woote waxtan bu yaatu ak ñi nga xamné ne nitu daara yi ba ñom ñu xamni amul dara lu ñuy luy suñu yéné ci yaq jangum jang daara ak jangum alxuraan waye am nañu yéene tamit li nga xamné ci niveau supérieur qui di borom bi dafa am yene la am mom moy li nga islamique gannaaw loolu ñu système universitaire bi am ba fay di jangalé ak nit ñi mu am lo dañ intégré ci système universitaire ba ñu considérer comme des salariés de l'État du Sénégal Mané. ci wàllum paj muy santé ñun nag ci suñu programme nee nañu dinañu améliorer la carte sanitaire lan la ñuy def mooy am nañu yéene tabax fi ñetti centre lu ñuy wax polyclinique mooy ay hôpital yu mag yoo xam ne li nga soxla yëpp ci paj ak plateau médical bu kawe ñu équiper ko recruter ay médecins waaye def ko ci ñetti communes yu gën a mag ci département de Mbacké waaye loolu bu weesoo it bëgg nañu am lu wax le système ambulatoire lépp lu ñu war ci équipement nekk ci biir pour ñu fekk nit ñi fu ñu ne di leen defal euh, détection pour prévenir pour anticiper ci feebar bi. bu loolu weesoo ci wàllu ndox mi fii ci département bi problème ndox yàgg na fi trop trop trop problème ndox mii nga xam ne am na ci région de Diourbel am fi ci département de Mbacké. ñun bëgg nañ ci am ay solution mooy li ci njëkk fu mel ni Touba nga xam ne sancaan ya nit ñi duñu gis ndox amuñu ndox am nañu yéene yeggale fa ndox ci lu gaaw ak benn schéma adduction bi bëgg nañ it indi benn réseau boo xam ne ci désalinisation li tubaab di wax désalinisation mooy ndoxu géej gi am nañu léegi ay xarale yoo xam ne mën nañu génne xorom bi ba ndox mi doon ndox bu ñu mën a naan te yéen xam ngeen ni fii Louga soriw fi Lompul soriw fi mun nga jële addiction mu jóge Lompul jaar Kébémer ñëw Touba ñëw Mbàkke nga jox nit ñi ndox mu baax te géej gi mënuñoo fexe ba jeexal ko ndax géeju yàlla la. su ngeen ñu wóoloo ba dénkuñu ci anam googu ku gëjoon Sénégal fukki at boo ñëwee Sénégal danga naan est-ce que ci même réew mi laa nekk ba léegi loolu mooy contrat bi ñu bëgg a signé yéen. def leen ci seen wàll ñu def ci suñu wàll yàlla boole ànd ak jàppale ñu ñun ñëpp ñu defar suñu réew asalaamualeykum wa rahmatullah